village xam naa ni li ñu fi boole ñoo ko bokk muy génn àdduna Amath Dansokho bu weesoo kàngam bi mu doon ci wàllu gauche bi te mu bokkee xalaatin ak ñu bari ci réew mi waaye it am lu bari loo xam ne ràbb na ko boo yëgee ni tey dëddu na lan mooy say kàddu yu njëkk Elhadj Kassé <coughs> waaw suma Euh, ne daal dëkk bi am na lu ñu ñàkk am na lu ñu ñàkk ndaxte euh, ki dem tey muy Amath Dansokho nañu wax ne modérateur la woon euh, régulateur la woon régulateur politique parce que man bokk naa ñi nekkoon ci extrême gauche euh, sénégalaise tendance euh, ànd jëf euh, ñu ràññee ñu comme ñi nga xam ne ñoo gënoon contre Senghor ak nguuru Abdou Diouf ñi leen di attaqué sax ñoom waa PIT ñoom waa PAI waaye Amath dafa mës Euh, dox doxu jàmm diggante famille bi mu duggee bi ñu waa PIT defee analyse après quatre vingt huit quatre vingt onze dugg ci gouvernement yi yooyu yëpp euh, am na parti yi nga xam ne ci gauche bi la nekkoon dañ ko naqari mais euh,

suma mag la woon suma camarade la woon euh, voilà quelqu'un bu bu doon reetaan c'était un rire que j'appelais tragique rire tragique maanaam mooy reetaan bi nga xam ne mun nañ ci jàng parce que mbir mi li mu métti métti diis diis Amath Dansokho dafa doon reetaan te reetaan googu dafa amoon solo loolu parce dafa doon détendre li mu nekkal ba pare woo leen ni mbir mi du naqari moo ko fi jëlee mais lucidité réflexion xalaat ak mandute moo koy jëlee euh, Seydou Cissal wax na ko léegi euh, reetaan boobu daf ko doon partager ak ñi mu mag ak ñi ko mag ak ñi nga xam ne ay mën nañu nekk ay doomam comme suma genre gi mais il était dans la de se dire là mots mots tax bon euh, tout affaire joy mais ko le ko c'est un homme exceptionnel franchement exceptionnel mhm. qui a su partager